soxlu ñu benn crise je répète je le confirme devant les Sénégalais cette crise est imaginaire et a été inventée loolu laa jàpp parce que loo xam ne dañ ko wékk depuis démb dégg nga ko Assane Ba wax ko fii ba mu ko waxee fii euh, ñu confirmer ko fii kii waa waa APR kat kii moo fi nekkoon Doudou Ka c'était le même langage que li ñu fu ñu wékk mbir mi mooy conseil constitutionnel bind na loolu de la ñuy wax loolu mooy crise bi comme tontu na bind na rek crise am na man si looloo ma jaaxal c'est-à-dire def nañu commission d'enquête parlementaire ñu teg ay député pour ñu def liggéey boo xam ne dañuy saytu conseil constitutionnel nee nañu comme conseil constitutionnel bind na kon crise am na mais nañ leen convoqué ñu teg leen ñu acté ne ñoom ñëwuñu ñu mën a ñëw l'initiative du PDS d'accord mën nañu def lu leen neex mais bu tey ba léegi heure bu ñu wax la l'Assemblée nationale ne peut pas reporter les élections ça c'est clair et net donc crise amul la crise est completement imaginaire bu ñu fi ne ci Sénégalais ñun dañoo bëgg jàmm amuñu benn crise suñu biir crise bi xam nañu fan la jóge ak lan moo ko wund yaay posé fii ay question nguuda di ci tontu ce qui se prépare bu président demee ba le deux da koy jébal carrément maam euh, maam c'est préparé parce que ñoom lu ñu def bëgg nañ ko def kañuy xeex xeex nañ ko ba pare am nañ leneen li ñuy def mais ñaari actes yu ñu posé yëpp ils sont directement allés vers leur perte te képp ku nekk APR ak benn Bokk Yaakaar te nga gis injustice bi ñuy def da ngay démissionner dem sa yoon doo ko topp parce que lii gor gor rek la nga mën a nekk. merci beaucoup mais loolu nag nañuy jàpp ne. lii Pape Djibril Fall wax sama rakk ànd naa ci ak ñoom Anta Babacar Ngom ak ñeneen ñi ñoom ñoo gën a subir tey injustice parce que ni ñu ko waxee da yow si subi si sa bopp. tu as subi une grave injustice. parce que tu as des contrats tu es euh, tu n'es pas public. tu es du privé. dañu jël yi nga contrat yi nga dem sous-traité ak gars yi pour campagne bi ñu yàqal la ko te moom ngay fay ñi ñi fi nekk ñëpp. di leen man damaa leb. commencé def ay dépenses dem nga xam nga yow da nga dem si banque. <laughs> sëriñ boobu annulé na contrat yow da nga dem ci banque ñu jox nga ne banque bi dama am ay contrat dañ moo war a def campagne pendant vingt jours. nga dem gis ay candidat ñu war a dem ay engagement ñoom itamit banquette pour dem couvrir seen banque campagne loolu yëpp ñu yax ko sur des supposés et velléités de corruption yoo xam ne ki ko wax indiwul benn preuve